non ren moom sunu problème dëgg dëgg dëgg dëgg maire Grand Yoff noom ay ay kii lañu ko vraiment man maa ngi dëkk Scat Mbam 2000 2004 ba léegi nii maa ngi dëkk foofu xam nga maire bi benn dañ nuy soxla maire bi dañ nuy soxla bu nu soxlaa ñun dañ si def lu nu mën yaa ngi dégg mais vraiment ren moom ñoom lu leen neex loon def lu leen neex mais yàlla bëri na sutura mais ma jóob moom si wàllu boobu en tant que maire Grand Yoff moom vraiment. bu ko ak nit ñi dare Pipa photo seen Babacar si moom boobu nekk si buróom dina ko dina ko yey quoi parce que mënu ma gëm nit ñi jël seen place ñun tey ji comme exemple dama lay wax man damay jël sama place def tente tente bi par exemple yaa ngi fay trois cent mille wut sa dix cinq booy yoo xam noo lay jàppale si xont bi booy bu nekk bu julli bi passé soo paree di dem booy bu nekk daa ko jox benn xar bu ndaw xam nga jox ko agent de poste xam nga nit ki tamit mun la jàppale ba pare nga koy xool ay di koy jox weccin wala dara loolu du yëfu nit parce que booy 15 jours avant nooy jàppale nooy sang xar yi nooy xont def li yëpp mais au moins xanaa mu dund si nit ñi ñoom wax nañ nit ñi nañu dugg foire xam nga ça veut dire que ba essuyer yaa ngi dégg ñoom seen wàllu bopp ñoom seen wàllu ñu nekk si mairie bi si wàllu boppam ñoom ñoo génnee waa foire bi seen ay nit wax leen dem leen lan si deux voies yi coow jiwul daan seere yëpp loolu loolu du ko lan la du naa fekk la ñun fii ñu nekk nii bokk si Grand Yoff fii ñu nekk nii bokk si Grand Yoff Yoff la bokk yaa ngi dégg ku mel ne Diouf tey jii bu ñu ñëwoon wax ñu carrément waa bu war a waa maire Yoff yi bu ñu ñëwoon wax ñu jug leen dañuy jug mais ñoom xam nañ ni exact dëkk bi dafa metti moo tax ñoom seen waar ba ba ñëwee dañu wax carrément bu leen fi def suuf gérer leen fii def leen comme seen kër bopp mais vraiment no moom moom waa Yoff moom ñu ngi leen sant quoi maire Yoff seulement mais ñun waa Scat Bambam moom kontaan nañu Suma Diop benn yoon te ma Diop un jour vingt dara dina soxla jaami te moom xam na bu baax ñu ngi koy xaar si taatu ndaal yi du man kase ñun bëri nañu ñun bëri nañu chaque euh, cinq ans xaw ma dix ans wa ngi nii ñun ñëpp nooy jaayandoo si deux voies mu rafet xam nga ñun ñëpp nekk ensemble ñu cool mais ma Diop moom ren yàlla baax na ko ñu ngi koy seetaan quoi moo ba xam dagam dina ko jik